Euh, neexul ay mbokkam ca Malicounda ga ay wajuram dëkk ca mbuur fan yëpp mbo mbokk am di jàmm xarit dëkkandoo ña ngi fay def sele bi yoon di baagante di ko seeti ay wajuram ngir mettit lu nu mel jaari sow ku nekk xam na ne c'est euh, maire élève la woon fii ci Sénégal deux fois sax mu bénéficier d'une bourse étrangère nekk foofee ci lycée Louis le Grand ca Paris depuis décembre fête Noël yi gisuñ ko ci chambre am gisuñ ko ba le ministre l'ancien ministre de l'éducation nationale Serigne Mbaye Thiam bi nekk parent bokk ak moom benn résidence di ko mënu ko jot nee nañ yeey ambassadeur bu Sénégal ca France ak consulat bi ak les policiers française euh, comment dire la police française autant pour moi ñu ngi ci def seen liggéey waaw naam nañ ko def lu luñ ci gaaw xeeb nañ ko wante dama jàpp ne càgganteef am na ci ñu mel noonu parce tamit ku nekk xam na ni Sénégal yàgg nay ñàkk ay karagam ci biti ñoo xam ne ay karak lañ ay ay ay ay ay ñoo xamante ni nañu dudee dañu seen aliwo kawe ne macha allah waaw Sénégal ndax yàggul seetaan lu nu mel ndax dama xam ne décembre ba tey ba tey janvier bii daanaka léegi ñu dem ci mi janvier lu mel ni mënuñ ci am résultat ci recherche et aussi lu tax bi xale bi demee jàngi foofu ku nekk xam ne ne ñu yàggul jóge Sénégal sax doon présenter benn livre au président Macky pour pourquoi du ñu am ay bàyyi xel doomam yi nekk ci bitim réew malheureusement day joxe exemple que ni sax waxuma la réer gi réer nii rek mais suñu doom yi nekk foofu réer réer ci beneen forme maanaam ñu des fa toog fa te mën a jariñ réew mi am xam-xam est lu du mel sax ñàkk respecté ak topp googu du tax sax suñu doomi réew yi nga xam ne ñu ngi jàng xam-xam foofu buñ noppee duñ amati yéen ñëw fii parce que il y a l'absence d'une volonté d'un engagement boo xamante ni euh, euh, mi ngi war a jóge ci suñu ay dirigeants Afrique seeni doom fonk leen réew mënul développer te te say ndaw toppoo leen bàyyi leen xel rawatina ñi am xam-xam war a mën a bokk ci nasaka nocci les décisions de demain euh, ci ci de l' avenir de de votre pays kon il temps que ñu gën a bàyyi xel ñi nekk foofee jaari saw lu ñu ko gën a trouver gën ko gis xeeb nañ ko nañ ci gaaw ay mbokkam ñi ngi ci banwu jaaxle Sénégal ñi ngi ci banwu jaaxle ñëpp ñi nga xam te ñoom ñoo ko ñoo ñoo nekk fii Sénégal moo xam ak koo mën di doon loolu mett na ko kon war nañ ko gaaw lu ñu ci gaaw trouver solution yi dina ci am solo ndax ay waajuram seen xel mën a dal ndax euh, jamono dafa tërër yi ku nekk gis na bu baax way fuppi yeeg def kati ñaawteef yeeg ñeneen ak ñeneen ku gi xëy waajur sax bu xëyee doomam yeex a jàng wàcc école sax ñu këram xelam du daal asamaan ñu woo ko koo xam dëkk dëkk la distance ne sa doom ba ne France kat gisuñ ko depuis daanaka léegi semaine wala ñaari semaine ah moo kii président la république laay interpellé le ministre de l' intérieur le ministre des affaires étrangères ak toute la diplomatie sénégalaise luñ ci gaaw nañ ci luñ ci luñ ci def rek luñ ci gaaw rek nañ ko pour que ñu trouver soxna soosu di jaari sow